suuf si ni ni ñu ko séddoo est-ce que suuf soosu waxu suuf boobu c'est pas un peu symptomatique de ni ñu séddoo réew mi pendant des années. Mm-hmm. parce que j'ai man su may déglu Pape Sané mu wax après ma déglu euh, Dame Mbodj euh, j'ai l'impression que ni benn gâteau la bu ñu tegoon rek di dagg ku ne ku ñëw ñu jox la après yaay xool noo koy def. waaw Moustapha bu ma dégloo kilifa yi wax nii yëpp. Mm-hmm. damay damay damay damay xaw a amer en même temps mais je suis rassuré ci benn côté bi. ñii ngeen di wax ñi jël à gauche à droite. sóoruñu woon ne. rupture bi dana agsi. daf leen bett parce que. non 2035 lañ gëmoon ni seen nguur dafay yegg. <laughs> <laughs> daawoo dégg ñu naan 2035 seen émission. c'était ça l'objectif waaw moo tax ñu def liñ def. moo tax ñu tiit dañoo tiit de. dañ ko gëmoon am na ci kenn lii ngay wax ni am na ci kenn toog nañu juróom xam nga lu ma wax. Mhm. mais gis naa la yoo ngeen ne ci télé yii di yii yii mais war ñun pareeguñu ah. nous one est pour. ba 2035. 2035 raisonnement bi c'était ça. léegi nag yàlla dafa bëri ay mbir jàpp naa ne Sénégal yàlla moo nekk di ko tabax. Hmm. ci sama gis-gis ba gàtt. di ko jaarale ci ay nit. ñun dañu amoon réew boo xam ni ci wàllu gëm-gëm pas-pas parce que tey la ñuy toog naan sunu président jàng naa. Hmm. kii am na diine de kii i président mooy jiite. Hmm. léegi lanu dal di. bu njëkk dañ daan kii rek. dañ daan yaaba rek këpp rek dem mhm. tey nga am kuy taxaw ñu gis ko mun ñu ne parce que Moustapha mhm. la force de l'être humain c'est sa fois soo dee yawut juif nga doon ka ba ñëpp xam ne doon nga ka soo dee chrétien ñu xam ne jàng catéchisme gëm nga ka mhm. boo dee jullit ñu xam ne saa yi mais mënuloo nekk ab jullit doon majjos makka ki yanki yanki di dem rek te kenn xamul foo jëm moo nu dal 2012 ba 2024 on a eu affaire à des carnassiers ay nit yi nga xam ni fi nga toog naan eh, lii rafetul de keeruñu loolu ñoom xam nga ñu xam. Mhm. hélas dafa am kaka jiite woon moom la kilifa bi wax daal lu ñu fi mënti wax. Mhm. te jàpp naa ne nag jëli ko dana compliqué. Ah, waaye lu ñu fi mënti wax. ah moom la lii fi xew ci njombe. jëli ko Macky Sall Pape Sané yaa ngi wax waxi waxi euh, donné à des villes prix ma lan. Mhm. dem leen laaj waa Adowa ñaata lañ leen ko joxe. le mètre carré centre ville. en centre-ville. 3000 xaw ma ñaata. en contre non ba benn benn kilifa. dama ko njëkk a dégg dama ko njëkk a dégg ci kilifa beneen kilifa ne ma junni. waaw. mais contre partie des su fekkee am na loolu. imagine nga ñëw jël fa tabax ko yëkkati ko di jaay appartement yi ñaata 35 millions 40 millions. mais lan mooy contrepartie ba paasal xam nga contrepartie bi. mooy ñoom ñu compenser ko au Maroc. c'est-à-dire. compenser au Maroc comme. c'est-à-dire ah, compenser au ah, ah. Maroc. ma base ko Maroc yow gisoo gisoo Macky Sall këram gi mu am Maroc. da nga bëgg a wax daa bëgg suuf boobu bi moom moo tax. mais moo compensé au Maroc. mais Macky Sall li mu fi def ci dëkk bi dama ne la man Macky Sall daal sénégalais yéen a ngi nelaw mais nga Macky Sall mii. luñ fi wax. lu dul jëli Macky Sall loolu fi wax lu dul jàpp Macky Sall waxi kasaaw kasaaw. d' accord alors c' est compliqué. alors c' est euh, compliqué. tu tu je veux juste dire que. Mhm. fi ñu toll nii. cette rupture là drastique elle elle doit être sincère. malheureusement mën nañu dugal ci ci benn retard parce que bu ñu delloo ginnaaw dans l'histoire Casamance coow li foncier moo ko indi ce sont les administrateurs encore une fois de plus dans le temps parce que dañu am benn boulimie xam nga ngaf ngaf fifi tiit c'est-à-dire que yow daatoon ton entendement foo débarquer war nga fa am suuf foo dugg war nga fa am profit mhm. mais quand des gens raisonnent comme ça manquant de civisme et de sens de civilité. mais ni ñuy dund rek lay lay. donc alors li ñu wax ci suufu aéroport bi c' est tellement intéressant que mais dañ ko bëggoon a euh, waxaale ci ci suuf euh, yi am litige yëpp mais dafa am lu ma euh, professeur Ismaïla Mbaye Euh, lébu oui. euh, fidèle de de Pencho di expliquer nii et ça me semble intéressant pour éclairer un li nga xam ne moom la nekk di waxtaane parce que kii mi ngi wax ne il faut ñu xam suuf si nan lañ ko joxe mhm. maam biram ne est-ce que dañu indemniser woon moom il il il il il ces questions il s'intéresse à il me dit concernant la question de la l'assiette foncière Ouakam Ngor Yoff il s'agissait d'une réquisition. Mm-hmm. Euh, les Lébou ont obtenu quasiment une somme forfaitaire. ce qui est différent d'une indemnisation calculée souvent sur la base d'un accord sur le prix de cession. Alors, c'est pourquoi une clause a été prévue et ça, ça me semble intéressant. Laquelle euh, clause donc euh, stipule la remise des terres réquisitionnées aux ayants droit au cas où l'État renonce au projet okay. initial yes. qui justifiait la réquisition. Voilà, c'est-à-dire que euh, léegi léegi xam nga loolu xam nga lu muy induire que toutes Euh, attributions yi ñu fa def. Mhm. toutes les affectations yi ñu fa def. Mhm. c'est des affectations illégales. exact ce qui est clair su ma dégloo su ma dégloo moo tax moo ci site bi dafa am benn femme bu ma ñëw dawal otoom. moo benn waaye ku ci nekk dawal otom parce que foofu boo fa nekkee moom boo taxee da gis ni gars yi fii ay milliardaires la mhm. <laughs> mu ñëw daan ne ma non Dambo ñun fii ñoo ko jënd ci kii leen jënde kee moo na jaay et cetera ma ne leen ku jënd loo xam ne régulier na amul looy tiit mais ñun li ñu xam mooy dara jaaru fa yoon cité beeg cité bële gars yi lu ñu bëggoon def lu leer dañuy jël périmètre bi yëpp ñu mhm. dénk ko CDC ba noppi nag def vente bam Sénégal yëpp ay xam ni muy deme mhm. ñëpp ñun ñëpp ko bokk. Ah. ba noppi nag avant ñuy def loolu ñu xool la communauté lébu. Mhm. bi nga xam ne moom moo ko joxe woon parce que encore une fois ñuy wax yëpp communauté lébu li mu fi joxe yëpp la euh, euh, da doon daggalaate ñii mhm. am na ñun sax dañ naan la doxal doxal ñu lay xool ba séenatuñ la ñu la sampal foofu. <laughs> dañ doon maye lébu yi dañ booba voilà wax ne la mhm. état bi moo la gën a xam ne jënd ko ci collectivité lébu jënd amul mhm. comme jënd amul aéroport la ñu waxoon ne moom lañ fay def muy utilité publique mhm. ñëpp d'accord ne loolu baax na pour réew mi mais ba mu ko defee aéroport ñu dem ba léegi ñu ne aéroport ba dañ koy tëj mais bu ñu koy tëj ngir yàlla ñu leen joxoon suuf si nan la leen woo waxtaan ak ñoom. d'accord alors mais doo leen jaay doole. lan nga ñu mën a mën a leeral ci explication bi ñu jox ni que ni euh, su ma comprendre ah li professeur Ismaïla Mbaye wax que ni suuf si lébu yi bi ñu koy joxe euh, ay somme forfait forfete lañ jox parce que réquisition dañ ko nangu ci ñoom et qu'il était prévu projet ba nga xam ne moo tax ñu joxe seen suuf bu demee ba nekkatu fa. ñu delloo leen est-ce que loolu luñ luñ mën a dégg la. bien sûr lu mën a am la parce que comme ni mu ko waxee état am na prérogative bu def réquisition. Mhm. mais nag li waral d'habitude souvent combat yi duñ mëne parce que gars yi des fois dañuy def conférence de presse takk bande rouge.